bonsoir salaamaaleykum mbokk déglukatu Rewmi FM dal leen ak jàmm seen émission sans filtre euh, muy jotaay ndaw ñi euh, fii ci réew mi FM lay am euh, mercredi bu jot 16h 15 jàpp à 16h tey ñu ànd ceeg Boubacar Dembo Sagna PDG BDS groupe ñu fas yéene waxtaan loyer ak lépp li nga xam ne moo jëm ci loyer rawatina métier yi nga xam ne moom moo ko wër laata ñu koy jox kàddu gi moo faal naa la. waaw ah, Sylvie maa ngi fay di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi suivre jamono ji à travers euh, rajo mi FM ak euh, émission euh, sans filtre espace jeune donc di jaajëfal suñu ay invité ak képp koo xamante ne ñuy teewlu jamono ji si à travers la 97 point 5. Euh, ñu tàmbalee ak rubrique actualité nga tënk ko Mor Fall. waaw rubrique actualité tey je pense dañ koy dañ koy rek euh, mi ngi jëm ci euh, li nga xamante mooy coowal viol yi nga xamante moo am jamono ji ak plainte yu bëri yi jamono ji nga xamante moo gën tey muy benn étudiant bi ñu wax dafa violé lu toll ci cinquante étudiants te jamono ji ñu ñu ñu porté ko plainte moom ñu war ko mën a topp ci wàllu viol fii Sénégal fii ci université donc mu nekk yenn yoo xamante ak ki nga xamante ne doon chantage benn accès euh, kii am gelam euh, ci ay euh, sexte bi mu yoroon ci moom ba jamono ji ñu daal ko tëj kaso donc mu nekk yéen yoo xamante ne jamono ji Sénégal wàllu viol mi ñu fi commencé di di di lembe lëmbe mm-hmm. benn am benn ampleur bi ba sax ki nga xamante ne sax moom mooy Moustapha Diakhaté suba mu naan est-ce que sax ñu def comme dëkk Inde ni ñu def wala yéen dëkk yi nekk Afrique ñu exiger li nga xamante mooy castration ci ñenn ñi nga xamante ne ñooy def mm-hmm. je pense que mun am benn proposition joxe na ko ci loolu jamono ji Sénégal wàllu viol ñu commencé nañ koo banaliser comme euh, ni muy amee ci yi nga xamante ne moo nekk euh, suñu suñu ay pays limitrophes lu su mel ne Guinée mm-hmm. euh, boo xamante ne amoon na fa kenn ko xamante a avorter ñoom dëkk boobu viol dañ ko xaw a tuuti donc fi mu nekk nii je pense que Sénégal coow li bëri na bëri boo xamante ne pour ñu développer tey je pense que day am beneen jour boo xamante ne dañ ci mën développer mais fi mu nekk nii je pense que jot na ñu jël ay matuwaay mat ci wàllu viol soit ñu am dégg ay daan yu metti yoo xamante ne na ci am wala boog ñu jéem a jël proposition bi nga xamante ni Moustapha Diakhaté jox na ko muy castration wala boog ñu ñu def peine de mort ci wàllu euh, viol yooyu ndax mu mën a wàññeeku ci biir dëkk bi. li nga wax rëy na góor nga de Aboubacar euh, ñu am mbégte kontante dalal la suñu plateau sans filtre Aboubacar Dembo Sagna ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga ñu teeg suñu mbokk auditeur Sylvie maa ngi leen di fay maa ngi fay seen auditeurs yëpp. Mhm. di leen wax jàngeen jëf ci invitation bi. Mhm. ndax am nga loo sànni ci euh, li nga xam ne Morphal développé na rawatina euh, euh, affaire viol bi nga xam ne ñu ngi ciy tudd Miss Sénégal bi. bon comme affaire de justice la loolu duñ ci développé dañuy bàyyi rek. après mhm. ñoom ñu géré kii yooyu noonu daal. d' ñu bàyyi justice mu def liggéeyam d' am na solo mbokk yi donc Boubacar Dembo Sagna mooy suñu gan boo xam ne entrepreneur la ndax moo di président directeur général BDS groupe euh, ñu bëggoon nga wax ñu rek say jaar-jaar noo def ba taxawal sa euh, groupe BDS ndax amaan na mën nga inspiré ndaw bi nga xam ne mu ngi lay déglu. waaw BDS nag euh, ñu ngi ko créé depuis 2009 2009 lañ ko créé ba ma jàngee ba pare. Mhm. bon maa ngi jàngee dëkk bu ñuy wax Marsassoum parce que fii laa commencé d'ailleurs Dakar. Mhm. après ñu yóbbu ma Marsassoum ma jàngi. après ba ma jàngee ba pare en 2009 la ñu créé BDS. Mhm. BDS nag euh, bañ koy créer am na li ma ci inspiré woon mooy ni que ci marque oto yi laa doon xool après arrivé un moment ma xam ne que ni marque oto yi ndekete ay santu nit la. Mhm. mu inspiré ma quoi ma ne donc man je veux faire quelque chose pour mes enfants. Mhm. léegi lan moo tax man tamit du ma def BDS groupe donc ci biir groupe bi nag ma ne ñëpp ci lañ nekk donc depuis 2009 nag euh, voilà ñuy ñafe. parce que tamit euh, nekkuma fii dama nekk à dem di ñëw à chaque instant donc je voyage un peu partout. Mhm. voilà donc euh, ci la ñu taxawal BDS. voilà nekk fa ay jeunes yoo xamante ne mhm. liggéey rek la def. Mhm. voilà lan mooy BDS ak si lan lay yëngu. Euh, BDS Boubacar Dembo Sagna moom mooy. say initial sama initial. donc ñun dañuy yëngu ci yëpp ah, parce que ay promoteurs immobiliers lañ dañuy tabax dañuy jënd ay hectares di ko di def ay morcellement di def ay terrassement. voilà di jox nit ñi dëkkuwaay. voilà d'accord lan moo la poussé ba nga dugg ci wàllum immobilier parce que métier yi bëri na li nga waroon mën a investir bëri na mais da nga tànn immobilier bi nga dugg ci. waaw dama tànn immobilier parce que dama dama am jaar-jaar ak immobilier donc dama fekk samay waajur amoon mujj néew doole. Mhm. dem ba maa ngi rappelé wu ba may def euh, troisième maa ngi daan euh, préparer examen histoire géo la woon UG yi ñëw indil sama papa këyit. donc huissier sax léegi la ko nit ñi ñeme mais bu njëkk ba huissier bu ñëwoon surtout nga gisoon cachet tampon bu rouge. Mhm. ça faisait peur. Mhm. donc man maa nekkoon ci kër gi maa ngi yoroon sama kay histoire jo ba ma liiree ma gisee ku nekk sama papa dafa amoon bor loyer. et ma xooloon teraanga bi mu amoon ndekete kër gi ñu dëkkoon sax jaayoon na ko pare xamuñu ko woon donc ñu amoon bor loyer ci kër gi ñu moomoon ñun. donc jour boobu noonu jooyoon naa trop sama kay boobu maa ngi ko denc ba léegi parce que samay rongo ñu ko yàq. Hmm. et depuis jour boobu nag euh, mu motiver ma quoi ma ne donc li tax tey man ma jooy. Hmm. et donc je vais me battre ba nga xamante ne suba li ni mel dootul amati sama biir famille daal. waaw hmm. d'accord euh, léegi euh, naka entreprise bi comment ça va naka affaire yi ndax yaa ngi. embauché ay ndaw ñu lay liggéeyal. waaw am nañu ay ndaw yu bëri ñuy liggéeyal quand même entreprise tamit mu ngi dox ñu ngi sant yàlla am nañu suñuy partenaires yu bëri yi nga xamante ne partout mhm. bi ma àndal kooku c'est un partenaire boo xamante ne fiable et mhm. donc ñu ngi liggéey ci yu yu bëri te tamit lépp pour Sénégal rek la. parce que mhm. lépp lu ñu dem indi tamit lu ñuy uti tamit lépp comme li ñuy wax guddi guddi rek Sénégal lay mujj daal. mais mën naa xam ñaata ndaw nga embaucher sa entreprise. bo ñi nga xamante ne tey ñu ngi nekk sous suñu responsabilité ñu ngi nekk 17 personnes. Mhm. waaw 17 personnes yaa leen di fay waaw di fay. am na solo donc dañuy ñëw rek ci euh, question euh, loyer bi yow yaa ngi ci biir déjà. Mhm. Euh, tey habitat nekk na benn question boo xam ne sensible nag fii ci Sénégal ndax bu ñu gisee exode rural ñi nga xam ne dañuy jugee ci région yi ak ci village yi di ñëw fii ci Ndakaaru bëri na lool ba tax na tey offre bi dafa supérieur non demande bi moo ëpp offre bi tey gis nañu aussi jeune marié aussi ku ci takk jabar yow bëggatoo toog sa biir kër waajur da ngay génn euh, nga dem louer ci appartement ah, tey cherté bi lan moo ko waral ndax mun nga ñu ko diagnostiquer euh, question loyer bi waaw question loyer nag euh, boo ko jëlee rek ci ci ci ci ci tënk bu ndaw état la problème loyer yëpp Sénégal état la parce que c'est vrai que exode bi am na mais dafa am responsabilité yoo xamante ne état rek moo ko mën a régler parce que tey ci jóge ci région bi ñëw dakaar c' parce que dakaar moo nekk di dox par rapport ak raison bi. Mm -hmm. parce que kenn musta nangu bàyyi sa njaboot ci gannaaw ne damay dem uti feneen li ngay uti boo ko amee fi nga nekk yaakaar naa ngay toog. donc datewul sax ci président bi ah wala président bi ko topp non non mu ngi daté depuis euh, indépendance la ñu waroon lijjanti problème exode bi. voilà parce que arrivé à un moment Abdou Diouf moo indi moo tax sa exode bi gën ñoo sonal parce que moom moo daan ne ñëw leen Ndakaaru Ndakaaru am na liggéey. Mhm. et donc nit ñi ñëw te gis ci seen bopp. finalement vague bi vague bi vague ba tey ñu toll ci situation bi li mel kon donc tey bépp problème bu ñu mënti am rek première responsable bi état la. état bi la te malheureusement état bi li muy joxe en question de logement doyut. non doyut parce que xam nga état bi dafa am benn système boo xamante ne mooy des loyers tant que état munta taxaw jàppale population am ci loolu day lor population am te ci guddi googu noonu lañ toll. mës naa am sens rencontre président à Londres ba ñuy wax problème loyer au Sénégal ma ne ko bu fekkee ni que léegi bëgg nga régler la problème de loyer à Dakar man am naa ci solution. parce que solution bi moment boobu noonu ñu ngi daan wax aéroport bi day jóg non du jóg ñu ngi tabax fële est que pare na wala pareegul ma ne ko certes bu fekkee ni que aéroport bi day jóg. aéroport Dakar bii nii huit cent quatre vingt la huit cent quatre hectares logé na plus de deux millions familles huit cent quatre hectares. Mm-hmm. parce que imagine toi boo jëlee benn deux cent mètres carrés. Mm-hmm. nga tabax fa benn R plus sept R plus ñaata famille nga logé ci biir loolu. Mm-hmm. mais bon ñëpp tàccu nañ ko ah, ba moom mu ne non si si ça c'est très bien tout. mais tey jii nii lu ñuy déggaat foofu noonu ça n'a rien ak li nga xamante ne mooy réalité bi nga xamante ne population moom la ñuy dund. Mm-hmm. et puis il faut nit ñi xam benn affaire dañoo nekk pays boo xamante ne secteur informel bi moo nekk di doxal réew mi. Mm-hmm. et secteur boobu noonu dañ leen commencé bàyyi ci ginnaaw te certes dund bi yëpp ci seen kaw lay këpp waat encore. Euh, en parlant de état euh, gis nañ euh, wi bu yàggul dara ministre du commerce am na ay euh, ay dogal yoo xam ne jëloon na ko notamment ñu limiter surtout yéen ñi yor agence yi limiter caution bi ci ñaari weer waaye itam teg fi benn observatoire boo xam ne dina saytu loolu ndax agence yi ñu ngi koy respecté wala respecté wu yow sa xalaat yooyu la mesure waaw xam nga Sénégal nag jëlum dogal moom dañ cee gaaw waaye taxaw ci ndogal bi dox moom mooy problème sénégalais sénégalais suivi mooy problème am. Mhm. parce que boo bàyyi xel 2014 indi woon nañ fi loi ñëpp tàcc ko. Mhm. et pourtant mu ngi fi am. Ah. loi la boo xamante ne tey jii nii képp ko xam sa droit boo ci demeek sa bailleur sax ci yoon. Mhm. du mun ci yow dara. et pourtant état bi topp ko. tey jii nii décision yi ñu jëloon foofu noonu euh, man je me dis ni ba léegi dafa des. parce que problème bi tamit da ngay dégg agence yi agence yi yi agence yi certes am na leen loo xamante ne ñu ngi koy def loo xamante ne d'accord ñu ko di demander ay deux mois de caution. un mois d'avance un mois de commission donc benn famille boo xamante ne mu ngi am problème mu jënd saaku ceeb mu ngi soxla benn néeg bu quarante mille nga laajte ko quarante fois quatre kooku mënut a supporter loolu te c'est pas normal mais bu fekkee ni que liñ ci tënkoon keroog ñu teg ko ci ponk ne lii lañ war a def ñu ko tegee ci yoon yaakaar naa population mun na ci gis boppam euh, état bi dina noppalu te je pense que agence yi aussi nañ noppal agence nag dañoo sonn parce que lu tax ñu mooy ni que euh, ñun xam nañ nit ñi lu ñuy dund dëkk bi moo métti mais borom kër gi bu ñëwee ne la man denk naa la sa sama kër et puis euh, da nga may danga may jox deux mois de caution un mois de loyer ça fait trois mois yow nga nar cee teg sa frais d'agence ça ça ça va être très compliqué. Mm-hmm. donc mais bu fekkee ni que état bëgg na loolu changer suba suba suba lay changer je vous donne un exemple état ba mu bëggee nit ñi tëdd vingt heures ñëpp tëdd nañ vingt heures ah. mm-hmm. waaw ba bëggee nit ñi tëdd vingt ñëpp tëdd nañ vingt kon nag état bu bëggee loyer bi que ñun euh, ñu ñu normaliser ko mooy ni que un mois d'avance lay doon wala ñoom ñoo xam ni ñu koy tuddee un mois de caution ñu def seen un mois de commission donc je pense que ni ñëpp dinañ ci gis seen bopp. Mhm. mais est-ce que du yéen agence ngeen ci li tax euh, loyer bi euh, nit ñi loolu la ñuy yaakaar mais du loolu agence du fixer pris bailleur mooy fixer prix parce que bailleur bi mooy ñëw. ne la man je veux apport locatif sama kër bi de temps et donc boo defee le dispatching da ngay gis que ni kii lim ma laajte donc cela veut dire que war naa louer appartement bi à temps donc du agence bi encore une fois. Hmm. borom kër yay fixé. donc état bi tey bu amee ñu muy waxaatal encore ñooñu la war a waxaatal borom kër yi ñooy fixé prix et puis ñu saytuwaat prix loyer encore une fois parce que loyer seer na ndakaaru trop trop trop trop trop da nga gis benn appartement bu ndaw ñu ne cent cinquante mille benn kër ñu ne la cent mille. mais salaire buy fay loolu noonu ñaata la kooku ñaata la war a am mais après lan ngay gis assignation rek ci dégg ay assignation rek. Mhm. moo tax léegi boo demee tribunal sax gars yi comprendre nañ léegi ah boo assigné sa client sax yaa ngi moom 6 mois 7 mois parce que gars yi dañ leen mujj sax jippi parce que xam nañ que ni lu ñuy teg amul fenn. mais loolu yëpp tamit encore une fois ci kan lay dellu si waat ci état mhm. état moo war a jël responsabilité am xam ni dafa nekk ci benn dëkk boo xam dañ naa am voie de développement mais il faut savoir que presque quatre-vingt pour cent de la population sénégalaise dañuy dund dans la précarité. Mm-hmm. il faut que xam loolu noonu il faut état bi xam ni que ni lii mooy sama population lii mooy seen coono état bi taxaw ci. Mm-hmm. Mor Fall may ma balaa ma lay kàddu gi. Mm-hmm. tey lan nga jàpp ni lu tax. état mënul jubóog ak bailleurs yi ak surtout agence yi parce que euh, boo xoolee coowal loyer bi mi ngi commencé depuis loi ba ñu njëkk a voté en 2014 fixer le prix du loyer. parce que bailleur bi dalay ne man maa jëndoon xeer maa jëndoon béton tabax ko donc état mënul ñëw di ma fixer loo ay prix. Mhm. lu tax mënuñoo jubóo. loolu loolu man je pense que wax bu yàqu la di nga dégg bailleur boo xamante ne da ne maa jënd xeer maa jënd lii wala maa dem la mi banque uy bu fekkee bailleur bi dafa am benn traite bu mu am ak banque. état day saytu loolu. Mm-hmm. accompagner aussi bailleur bi ak bànkam ci biir loolu. parce que bu fekkee ni que tey jii nii ba bailleur baa ngi fay un million banque bi. Mm-hmm. état bi ne ko da ngay wàññi sa loyer. Mm-hmm. banque bi bëgg a code de jël un million loolu day compliqué. et donc état bi bu nee bailleur bi wàññil ma sa loyer mais day dem topp banque bailleur bi aussi kooku xoolaat. yi nan lañ koy gérer pour bailleur bi tamit bañ a gaañu mm-hmm. mais tamit dama leen di wax benn affaire ñaata bailleur ngeen fi gis ñoo xamante ne luye nañ seen kër ba rentabiliser seen xaalis et ba tey taxul ñu wàññi loyer kon bailleur yi seen wax boobu tamit jàpp naa ne ko nekkul wax bu taxaw je suis vraiment désolé mm-hmm. bu taxaw mm-hmm. donc nag état mais yow bokkoo ci bailleur si bokk naa ci mais moom moo tax ma ne rek kon donc suñu wax ma lu tax may wax xam naa li may wax parce que gis naa euh, bailleur la mais am na loo xamante ne tey man maa ngi koy maye mais nekkul ñëpp koy maye xëy na man am naa xool boobu noonu pour maye ko ma la ok ouverture doo fay loyer tabaski doo fay loyer parce que xam naa sénégalais lu ñu dund. da ngay maye un mois da koy maye da nga koy euh, yaa ngi may dégg xam nañ li may wax. Mhm. mais est-ce que tey ñëpp mën nañ ko. mais du ma jël sama bopp di ko di ko di ko teg ci place su ñëpp xëy na man tey dew ma ci banque pour dem ut loolu noonu kii xëy na am na tey traite bu mu war a fay ci banque moo tax ma respecté traite am boobu noonu mais encore une fois état bu ko nee wàññi rek na xool ñu indi un plan ñu teg ko ñu ne ok li nga war a rembourser ci banque bi mhm. yaa ngi ko waroon def ci dix ans mhm. yokkal lañ la ci quatre ans au ngay doxee lii dangay joxe lii en fait solution yaa ngi fii mais donc ci solution yi la ñu war a liggéey mu nekk des solution durables ñi mhm. nga xamante ne tamit tey ay locataires lañ ndax ñu mën a am kër ëllëg mais dans ces condition loolu liggéey fayee ko lu waaye jàng xale yi ñëwagul dund ñëwagul mais fan la ñuy amee kër du ñu am mais euh, pourquoi pas yéen doo leen ay location vente aussi location vente bëri na fi dañ koy proposer mais conditions yi ñu koy tegee tamit moo moo moo moo moo normal parce que mooy li ma daan wax koo xamante ne mu ngi am problème junni nga ne ko indil apport dix mille fu mu koy amee du ko am léegi imagine toi soo demee dans les pays développés location vente bu amee dëkk bi maanaam état bi moo lay joxal sa apport état bu la joxee sa apport ñu ne ok apport bi vingt cinq pour cent la état joxal la vingt cinq pour cent mais donc bi ngay fay fee nga toog ci kër yi di ko fay. Mm-hmm. mais loolu bu amul état joxu la dara bàyyi la ci lépp mais munu ko nit ñi munuñu ko duñ ko mën encore une fois. <laughs> voilà donc man moom je pense que man du ma du ma du ma du ma raay raayal ñi nga xamante ne ñoo ñooy bàyyeeri ak euh, ñu yor agence parce que man je dirais que euh, dañuy def. ping pong ak ak ak bopp sénégalais yi mhm. parce que ñoom du ñu wax leer si yi parce que mhm. yéen ñi xam ne yéen yor kër yi mooy mhm. ñu yor agence yi ki xamante ne jox ko agence euh, bi bon day am dara buñ nee dañuy wàññi bon donc amatul sens agence di di am si dëkk parce que dañ naan bu ñu wàññee location kon ñoom lan ban apport la ñu amati ci mbir yi donc yéen ñi xamante ne yéen yor mbir yi pourquoi pourquoi mënu leen leeral sénégalais yi lu waral mënuñoo euh, wàññi ki nga xamante ne moom mooy moom mooy location yi wax nga léegi wàllu maa defoon sama béton maa defoon sama lépp mais ki nga xamante ne def na béton jël kër gi ne euh, investir naa lu toll ci cinquante millions mhm. ki nga xamante ni bon yow ba yow mi nga xam ne yaay bailleur wala yow mi yor agence bi xam nga ne kii combien de temps ci la a mën a mën a récupérer li mu def ci ci kii bi yëpp mhm. euh, ci année bi yëpp mhm. boobaa état bi dina mën a xam ne telle personne ou bien tel euh, tel kër ñi nga xamante ne ñoo ñoo nekk bi mhm. ñoom matal nañ seen seen li ñu war a mën am donc ils sont obligés ñu wàññi euh, traite bi mais yéen ñi nga xam ne yéen agence bi yéen wala yéen yor bay yéen xalaatu leen sax wàññi li nga xamante ne moom mooy kii parce que bu ñu rek naan way état bi moom moom mu war a jàppale mais way état bëgg leen jàppale e ci ban fànn la leen mën ci ban fànna ngeen bëgg ñu jàppale leen ko parce que mënuñu à chaque fois ñu ne yéen a yéen a yéen a moom euh, euh, kër yi yéen def seen yéen def seen lii ñi ngi xamante ñooy sénégalais aussi euh, ñi ngi war a mën a fay donc man mënu ma comprendre à chaque fois daal ñu ne problème bi ci ci état bi la alors que yéen ñi nga xamante ne yéen yor kër yéen yéen nangul wàññi mm-hmm. parce que yërma yërmande bi ngeen wax naan moom ngeen doxal ci kanam Sénégal yi est-ce que mi ngi ci yéen ci ci golo ci ni ma ko mën a jàppee mm-hmm. Euh, location bi nga xamante ne mën nañu wax ne kon aux Almadies mhm. ñu ne ki nga xamante ne moom mi ngi mi ngi mi ngi am kër Almadies danaan xaatuma fixé même prix ki nga xamante ne moom moom moo nekk euh, Pikine wala ki nga xamante ne moom moo nekk Guédiawaye alors que fépp fépp ci ci mhm. xaw ma xaw ma ndax euh, ndax yéen di ni di fixé seen ay prix mhm. ndax selon localité bi ngeen koy filmé wala wala boog selon li nga xamante ne moom moom mooy kër gi ni mu ni mu taxawee wala boog ni nga ko tabaxee compa il faut ngeen wax sénégalais yi lan moo waral à chaque fois ngeen jël lépp bu ko teg bi moom état bi la alors que yi moom kër yi état bi mënu ñëw benn jour rek ne waaw euh, tey jii si xarifa fay seen kër yi il faut ngeen wàññi ko euh, ba ba vingt cinq pour cent wala ba ba trente pour cent euh, sans pour autant yéen ñi nga xamante ne yéen moom kër ngeen nangu ko ba boo da nga naan on préfère ñu récupérer suñu ay kër que ñu que ñu wàññi ko voilà léegi dinaa la tontu ci su ñuy wax état hmm. parce que état moo moo ñu moo ñu moo ñu coiffé ñun ñëpp hmm. tey li ngay wax noonu recensement moom du ñun ñoo koy def parce que tey jii ñi recensement weesuwul nga jël këru nit déclaré ko au niveau des impôts pour que état bi mun ci jël impôt sur les revenus loolu tey weesuwul loolu noonu mm-hmm. état nag bu defee recensement bu ko deful du ñun ñoo koy defal état mm-hmm. encore une fois boobu muy benn mm-hmm. bu ñuy wax état c'est parce que tey jii ni ndogal ci ñoom lay joge euh, boo ne agence bu wàññee agence du ci am dara agence li muy am ci loyer ak moo néew agence sax pour mu am cent mille francs ci kër il faut kër gi génnee un million pour agence yi am ci cent kër yi génne un million bëriwut mm-hmm. encore une fois di nga gis tey jii nii euh, mën nga am benn kër goo xamante ne supposons mu ngi nekk Tëngéej kër gi di fay cent cinquante mille nga jël sa oto boo parce que léegi la sax ay wéev commencé ay yooyu noonu ah. mais boo daan jël sa oto nekk dangay ngay dem recouvrer loyer boobu noonu te quinze mille francs nga ci am au retour loo ci am amoo ci dara c'est parce que da nga nekk di def li nga bëgg da nga ko choisir parmi tant de trucs beneen bi ma lay wax la. état bi lii kenn mënut a wax ba doo delloo delloowaat lii ci kaw état parce que lu tax état bu fekkee ni que jër na këram kër yëpp ñu recensé leen. Mhm. déclaré kër yëpp au niveau des impôts. parce que encore une fois dinaa dal ci kaw bailleurs yi encore muy ñun ñëpp ah. Mhm. koo ci ne sa kër dama koy déclaré ji impôt mu wañ te dañoo war a fay état impôt di nga gis kër goo xamante ne xale bi mun na fa judd ba nekkaat maam ci kër googu noonu kër googu mus ta fay impôt Sénégal rek am. Sénégal rek la am te ñoo dàq kaas léegi nga ne tamit lan moo tax loyer yi mënuñu yem amul benn dëkk booy dem nga ne loyer yi fépp dafa war a mën yem mënta nekk parce que standing bi tey jii nii boo demee ci journal officiel bi dem nañ zone bu ci nekk ñu ne la mètre carré coûte combien mais lan moo tax néew ñu lan moo tax fii mètre carré nekk juróom fii mètre carré nekk fukk parce que standing bi moo tax zone bi mu nekk moo tax c'est très normal. Hmm. ville mënta yem ak banlieue au fur ngay gën a dem loyer bi di gën a wàññi loolu c'est très normal parce que centre ville la. yaa ngi ciy gën a jege. donc mooy ni que euh, privilège yaa ngi gën a am privilège par rapport ak ñi nga xamante ne ñoo gën a sori. donc coût loyer tamit noonu lañ koy calculer. surface corrigée même bu ñu koy def. dañuy xool standing bi jël surface bi. calculer xool lan la ñuy def foofu noonu ci matériel pare nag xool ci ban zone la kër gi nekk. noonu la ñuy fixer les prix. mais mais si wàllu kii bi wax léegi ne euh, wàllu euh, recouvrement yi ñu war di fay wala boog yéen impôts yi nga a fay bañ a boobu. Uh-huh. ndax loolu c'est que li ñu leen di ci impôt yi moom moom moo cher ba nga xamante ni euh, mu doon doon nangoo déclarer wala boog yéen ci boobu yéen yéen yor kuréel gi est-ce que jotul ngeen gis ne état ngeen ne ko. est-ce que doolu leen jëm a exonérer ki li nga xamante ne moom mooy moom mooy wàllu taxe taxe wala boog yenn impôts yi. Uh-huh. pendant benn période ñu mën a mën au moins. mën a wàññi wàññi li nga xam ne moom mooy moom mooy euh, euh, kii euh, fay fayu location yi mhm. wala boog ngeen leen nombre d'années bi nga xamante ni am nga wax ci wàllu location boo kër gi amee mhm. est-ce que boobaa duñ jëm mën a wàññi au ñu wàññi sax 10 pour cent ci wàllu taxi mhm. mais ki nga xamante ne am na këram mu ne euh, ñu ne ko il faut nga fay lu tool ci ay impôt ay quatre cent mille cinq cent mille alors que moom bu génnee ay bénéfices yi ci yëpp année bi presque du du tax sax li xamante ne moom mooy moom mooy yenn njunjaay yi am naa kër ma ne man maa ñëw luwee kër mhm. na ma ne man kër gi dama xaa defaat beneen beneen sous sous location mhm. mu boo xamante ne daanaka loolu ay daan mën na euh, bëgg laa koy tuddee parce que gis nga état foofu nag damay faral état état bu demee ba ne la impôt sur les lii nga war a fay. Mm-hmm. loolu nga war a fay c'est parce que calcul nañ. Mm-hmm. xam ne que ni kër gi mu ngi génnee quatre cent cinquante mille. Mm-hmm. ñu jël quatre cent cinquante mille multiplier ko par douze. ci lañ lay calculer sa barème li nga war a fay. mais donc dafa mel ni ci at bi yëpp kër gi liggéey état bi jël ci benn weer. te loolu noonu mu état bi di jël dañu waxante dëgg ah moom mooy defaraat tal yi ngay gisaat nii. mais déggoo li ma la Sénégal rek ngay gis kër yoo xamante ne du ñu fay impôt te ñoo fi dàq kaas lu ne ñu kaas ko ñoom tamit teg ko ci kaw état bi te pourtant balaa ngay kaas ci état aussi defal li nga war tamit li la war sa digganteeg moom aussi bailleurs du ñu nangu fay impôt. est ce que loolu loolu état bi leen rek. non non non mais peut être loolu yëpp mën na nekk signe ah. mm-hmm. mais loolu tamit c' est pas une raison parce que bi am na responsabilité boo xamante ne tey jii nii bu électo campagne électorale jotoon ñoom ñoo dàq diggee. Mm-hmm. donc ñoom tey jii nii lu ñuy dig nit ñi. loolu la leen nit ñi di toppee xëy na parce que nit ñi bu ñuy voté yaakaar naa dañuy voté pour un programme. donc su fekkee ni programme boobu lañ toll ñu ne ok kii voilà donc ay programme am social la naa ci dem et tout. Mm-hmm. mais bu fekkee ni que population bi voté na la tamit au retour mu ñëw gisul programme bi taxoon tamit mu voté. Mm-hmm. ça amène problème. Mm-hmm. mais dam leen di wax benn affaire Sénégal du ñu nangu yi dañoo war a fay impôt moom mooy yoon parce que boo kër gi liggéeyee nag liggéey ba pare. mais taxe boobu na dellu ci état bi. état bi tamit am lu muy mun suqale ko. voilà. Euh, euh, tey gis nañ ñëpp xam nañ ni l'offre publique en mhm. terme de logement ça ne pas donte mhm. sax état bi jéeboon na teg ay jéego yu ci mel ni le programme des cent mille mhm. Euh, donte sax doyul donc tey état bi man je pense que yéen la war a mën a jàppale pour ngeen mën a jàppale population bi mais tey gis nañ ni entreprise yi wàllum yëngu ci immobilier location ak jaay kër bëri na te pourtant bëriwul offre bi dafa xaw a néew trop par rapport à la demande lu ko waral te pourtant entreprise yi tey bëri na yi nga xam ne comme yow la dañuy yëngu ci wàllum immobilier. waaw loolu tamit nag euh, ma wax la li tax foofu euh, entreprise yi bëri nañ mais ñi am kayit tamit bëriwut mais comme on est dans un pays boo xamante ne mooy li ma daan wax le secteur informel day dem ba coiffé ñëpp nit ñi gëmm ci seen bët entreprise yi am kayit bëriwul mais entreprise yi aussi am nañu benn problème bu ñu am banque du accompagner fii. les petites et moyennes entreprises. les accompagnent pas. Et ça, c'est très dangereux dans un pays. C'est très très dangereux. léegi bu fekkee ni que tey man am naa possibilité mën a jënd dix hectares morcelé ko pour am ci benn soit quatre cent cinquante logements ma mun ko jël def benn programme pour tegal ko nit ñi nekkul ñëpp a mun am sens boobu noonu. Mm-hmm. léegi nag boo jaaree ci banque bi nga laaj ko fukk mun a tegal hypothèque dix euh, maanaam euh, cent. donc je préfère su ma amee sang boobu noonu sama ma dem jee xool ni ma koy débrouiller mais tey jii nii bu fekkee ni que bëgg nañu régler problème boobu noonu il faut que bi encore libérer suuf si jox ko ñi mu ko war a jox ñoom it ñu bàyyi pàccoo bi parce que moom moo fi nekk. Mhm. parce que problème loi bi tamit am na leneen loo xamante ne nit ñi duñ ko évoquer ñi ci am intérêt moo gën a néew. parce que souvent da ngay gis euh, yenn autorités yoo xamante ne mën na am quatre à cinq immeubles ñoom ñu nekk ci gouvernement bi nekk dix personnes. donc mu nekk ni que ñoom seen am-am yëpp cinquante immeuble la ci biir euh, xaw ma dix-sept millions sénégalais yi ñoom ñooy nekk ci nopp ñi nga xamante ne tey ñoo war a jël ndogal li war a jàppale population bi dañuy jël ndogal bu li ba nga xamante ne day favor euh, favorable à ñoom au détriment de la population sénégalaise loolu tamit moo fi am présentement dëkk bi ni euh, c'est la triste nag lii moo fi am présentement et donc il faut que nag population bi tamit jóg ci boppam ah parce que man je le dis haut et fort mm-hmm. il faut que population bi jóg ci boppam parce que li nga xamante ne ñoo ko bokk buñ la ko joxul sax nañ ko dem foqati nañ ko dem foqati ku nekk ci kër te nga xamante ne agence bi li mu la teg du yoon mm-hmm. xam nga sa droit euh, créer nañ sax ay euh, euh, kii yi nekk ci communes yi maison de la justice yooyu noonu mm-hmm. yooyu dañuy jàppale nit ñi parce que boo demee ba xamoo foo jëm boo yeggee ci ñoom dañu lay teg ci yoon. ñu mhm, doo ñu orienté la. Mhm. voilà donc tey état nag bu fekkee ni que bëgg na population génn ci na libéré suuf si jox ko ñi mu ko war a jox. mais mais ci ci loolu noonu euh, si wàllu offre bi ki wax léegi ak demande bi. Mhm. parce que dafa mel dafa dafa ne offre bi moom moom moom moom moo ëpp li nga xamante ni moom mooy moomay demande bi. non demande bi demande moo ëpp offre demande moo ëpp mais mais est ce nekkul aussi ne euh, sénégalais aussi ñoom ñoo ñoom ñoo xaw a concentré wu benn côté parce que dafa mel ne yéen yéen ñi defar que euh, doon nangoo décentraliser li nga xamante ni moom mooy wàllu seen seen tabax yi ngeen def ak yooyu du mel ne mhm. génn Dakar mhm. dem ay Diamniadio wala dem dem ay ay ay ay Boune wala Kër Massar ak yooyu mais da ngeen bëgg yëpp def ko ci benn côté boo xamante ne Dakar ay ay ay ay euh, côté euh, adversaire yu mhm. lépp ngeen bëgg ko def foofu parce que euh, xam ngeen ne foofu mu ngeen fa mën a <laughs> lekk facilement benn xaas bu neex mhm. waaye boo nee boo nee dañuy promotion ak ak ak wàllu mais si si si aussi noonu lay demee tout mm. temps mais dama lay wax benn affaire mm. kon dellu siwaat nga ci li ma tàmbali di wax boo léegi mooy état moo tax ma ne datewul si l' actuel président mu ngi date depuis suñu indépendance parce que tey jii nii nit ñi boo gisee ñuy ñëw di ut dëkkuwaay c' est parce que dañuy nekk di liggéey bu ma jëlee tey ay kër tabax ko Thiès wala tabax ko Kaolack tabax ko feneen et que kër yi nekk foofu noonu kenn jëlu ko parce que nit ñi dafa am loo xamante ne moo leen di pousse ñuy dem. tey jii nii bu fekkee ne que état sax moom décentralisé na ay mbiram mais kii bi day toxu parce que tey boo gisee Dakar mel nii nii c' parce que dañoo gis que ni Dakar moo fi sës. Mm-hmm. bu fekkee ne que tey li amoon Dakar amoon na Thiès après Thiès nga dem euh, Kaolack ah, voilà ainsi de suite mais sëñ bi Dakar ku ku sa ku sa kër certain prix après yaa xama ah, kër gi fa lay toog mu yàqu mais nii nii muy demee ni tant que état jërul responsabilité am décentralisé même nga xamante ne léegi ki dëkk Kaolack soxlootul muy ñëw dakaar ki dëkk Thiès soxlootul muy xëy si dakaar eh, sëñ bi après affaire bi day yomb. Hmm. mais euh, euh, accès accès terre bi est lu xaw a euh, jafe-jafe ci yéen parce que bëri na ñenn ñoo xam dañ naan wooy pour ñu accompagner leen pour ñu jot ci suuf yi sax ngir mën a investir prensaay day nekk jafe-jafe donc lan ma moo war loolu pour yéen yéen ñi nga xamante ne yéen yéen ay jël seen xaalis ko investir ci wàllu ci a dañ leen xaw a néewal doole daal tuuti tuuti jàppale ñu li ñu war a jàppale ndax li Sénégal amul yenn banque yi nga xamante ne ñoom wàllu investissement ci wàllu parce que boo demee yéen dëkk yi day mel ne investir ci wàllu agriculture ñi wàllu élevage ñii di accompagner ñii def wàllu construction wàllu habitat mais mel ne Sénégal bëri bëriwu fi wala boog bu fi amee boog néew na ñenn ñi nga xamante ne ñoo bénéficié wu donc yéen ñi nga xamante ne yéen yéen ay euh, def yu ni ci liggéey boobu ndax accompagnement bi état boo def dëgg dëgg ci ci yéen ngir mën a gën a mën a investir pour euh, euh, gën a mën a yombal wàllu accès à l'habitat bu mel ne comme sànq Sylvie wax na ko muy wàllu vente location bi ki nga xamante ne dëkk la ci kër 10 ans je pense kooku kooku war naa a Euh, euh, loo xamante ne tolloon naak liñ jëndee kër googu li ñu tabaxee kër gi donc est-ce que amul benn genre euh, méthode bu ñu wateeg boo xamante ne ki nga xam ne dëkk si kër vingt ans location kooku am na opportunité wala boo benn moyen bu mën tax moom kër gi parce que mhm. fay na kër gi ba sax wisal ki nga xamante ne moom moom moom loolu nag dafa am programme bu fekkee yaa ngi ci programme boobu noonu mhm. mooy li ma nekkoon di wax bu fekkee ne que dañ ne location vente la état bu fekkee joxel na la sa vingt cinq pour cent ou bien sa dix pour cent quinze pour cent mhm. li ci des nga nekk di ko fay mhm. euh, mensuellement pendant au bout de dix à quatorze ans mhm. kër gi mun nga ko moom loolu c'est très normal après nag nga dem ci euh, yeggali les formalités mais tey ji nii moo wax la benn affaire Sénégal nekkul ci condition boobu na ci ay wax nag ñu ngi ci condition bi ah ay wax mais ci jëf Sénégal nekkul ci condition boobu te pareegul sax pour ci condition boobu noonu parce que tant que population bi réew mi jàppalewul doomu réewam pour mu mun a am accès ci li ni mel munta nekk léegi soo demee ci suuf si mais suuf si da ngay def demande comme ñëpp ni ñu koy defee mais euh, réew kumba am ndey la kumba amul ndey la régime bu ñëw changé indi ay nitam. Mm-hmm. les choses changent donc euh, ñuy créer encore des nouveaux millionnaires ainsi de suite mais parce que du am continuité képp ku ñëw da ngay rajaxe ne mm-hmm. man maay commencé waat sama bosu bopp. Mm-hmm. amul dara lu ñu ciy def loo xamante ne day am continuité. moom moo tax sànq ma wax ci biir wax état na jox suuf si ñi mu ko war a jox. man li may xam naa ko bu baax parce que suuf si tey yaa ngi koy gis ci ay nit yoo xamante ne mérité wuñu pour am suuf mérité wuñu ko mérité am kër dëkk ci seen njaboot suturawul ci mais mérité wuñu pour am suuf ne dañuy def promotion immobilière kon daay tey jii encore une fois état mooy jox ñi mu war a jox suuf bu fekkee ni que dafa bëgg a teg location ban ay HLM SICAP état la mm-hmm. mais tey jii nii ñooñu bu ñu la waxee sax conditions yi ñuy jëndee wax bi coolee fi nekk rek de mais boo demee bi ci biir ça n'a rien à voir ak yi ngay gis ci télé ak yi ñu lay wax nii nii mm. gisante wu ñu dara léegi waxoon naa la tamit ci banque yi mais amul banque boo xamante ne tey mën na taxaw ne man maa ngi jàppale les petites et moyennes entreprises état moo fi créé ay affaires créé foon ay DER ak yooyu noonu di joxe ay financement mais financement sax yi ñu la daan jox nga gis benn nit boo xamante ne wala benn groupe ñu ne groupe lañu ñu jox leen trois cent lan lañ ciy mën ku am problème dépense cent francs nga koy wax waxu trois cent mille mais kooku day jël balaa muy wax dara tab balaa balaa ngaa ne naam sax na nga ne ba pare day dem dimbal dundal njabootam ba pare après nga ñoo dégg non ñu ngi leen di recouvrer dañoo lekk suñu xaalis te cooli cooli yëpp fekk 300000 lañ joxe kon tey jii ni état moo war a xoolaat encore politique logement bi nga xamante ne mooy problème Sénégal parce que nee naan Sénégal li koy taali ñaar la suuf loyer. Mhm. Euh, bu ma la déggee baax euh, location vente pour nit ki war a mën a moom këram accord la diggante bailleur bi ak euh, état bi. Euh, non pas bailleur bi parce que mën nga def benn programme nga ne location de vente lay def bu fekkee ni que nag jël nga sa programme boobu nga soumettre ko état bi état bi euh, yi état bi nee na am na benn barème boo xamante ne doo ko passé kër yi gën a que lu tax état bi am na loo xamante ne foofu moom porté na ko indi na suufam lépp lu nekkoon ci taxe teg teggil na la ko def na loolu noonu mm-hmm. mais léegi est-ce que amul beneen forme boo xamante ne war nañ ko mun jël man tey mun naa am suuf ma am suuf ma ne état bi man fii bëgg naa fi def cent cent logements wala ma ne mën naa bëgg naa fi def cinq cent logements. Mhm. léegi man maa ngi lay demander nga indil ma sa doomu réew. yi nga xamante ne tey bun nañu bokk sama programme ci ci logements sociaux yi. Mhm. tey ma ne ok maa ngi demandé apport 30 pour cent état bi ne ma ok man je te verse les pour cent mu indil ma nit yi nga xamante ne ñoo koy jël léegi à partir de ce moment ñu ne kër gi de juróomi téeméer la daan jar ci fukki at ak juróom kon boo xasee joxe lii. lii di nga ko fayee nii ci fukki at ak juróom. Mm-hmm. boo yeggee ci fukki at ak juróom boobu noonu kër gi yaa ko moom. c'est comme ça luy mooy loolu mooy programme. Mm-hmm. mais tey jii nii tamit programme yooyu day taxaw mais accompagnement du am. programme bëri na fii fii ay programme rek la. mais hmm. amul benn mesure d' accompagnement parce que banques yi nekkuñu ci condition buy accompagner les petites et moyennes entreprises. mais loolu mais est ce que ne hmm. hmm. euh, euh, jël na këram mu ne 2012 euh, laa tabax kër gi diggante 2012 ba 2019 wala ba 2020 mu am benn yokkute ba am ci wàllu prix bi ak wàllu mètre carré bi donc est du amaat benn problème bu am parce que boo ñëwee ne ko temps ba koy jaayee lii la woon donc am na benn avant bu ci am ci diggante bi foog nga fay lii. lii euh, ku wax ne la xam nga accord la hmm. et boo signé accord accord bi lii la hmm. lii lañ juboo ci prix hmm. yaa ngi ma koy fay fii balaa fukki at ak juróom fukki at ak juróom boobu noonu kër gi loo ci mënti def xam nga li nga xamante ne moo warta mën a wàññeeku xam nga mooy lan ñu ñëw di wàññiwaat prix bi loolu mënta nekk donc accord bi am nañ ko ci douze millions supposons ñu ne ok douze millions maa ko war a fay ci dix ans chaque weer maa ngi war a fay lii. Hmm. kon lii li ëpp solo rek mooy ni que weer gi ma la war a fay ma bañ koo manqué. Hmm. mais sama kër naa ko def R plus 12 après de. Hmm. weer bi ma la war a fay naa ko ma naa ko bañ a manqué léegi nag bu ma demee ba moom sama kër nag léegi li may def sama kër loolu xool loolu sa yoon newatu ci daal mm-hmm. voilà mais mais si jamono ji nga xamante ne moom laay wax ne moom moom ngeen am accord bi mm-hmm. ci diggante bi mel ne benn benn évolution am ci prix yi ndax loolu day day day andi am sax impact mm-hmm. parce que accord bi signé nañ pare si si ñoo xamante ne comprendre ñu ñëw ne la waaw euh, kër gi affaire bi yokk na wala bokk non loolu ay dóor la ko ah. loolu moom ay dóor la mais dafa am am non non non non en fait bëriwul sax lu ñu ci confronté quand même parce que quand même mm-hmm. euh, c'est c'est réglementaire. Mm-hmm. donc euh. arnaque boobu sax foofu laay ñëw. Mm-hmm. tey bëri na euh, euh, ñoo xam ne. dañu am problème suuf wala ñu xëccoo ay suuf parfois di nga gis koo xam ne dina ne dama jënd terrain alors ko nga dem ñu ne la yow terrain moom moo ko keneen ñëw taxaw ne terrain moo ko moom ay kër ak yeneen ak yeneen tey ku bëgg terrain ak ku bëgg kër ban yoon bu légal la war a jaar parce que tey boo ko duggee ci Facebook di nga gisoon ñuy jaay ay terrain mm, vente terrain titre foncier euh, wala jaay kër villa wala genre yo noonu réseaux sociaux yi fépp fépp la ñuy jaayee léegi ay terrain ak ay kër ñëpp ay agent immobilier lañ Sénégal léegi yow boo bëggee tey ku bëgg tey yor xaalisam taxaw yore euh, bëgg terrain wala mu bëgg kër bu pare fan la war a jaar ak yan papier la war a fournir waa xam nga nag pour bañ ñu euh, nax waaw pour bañ ñu nax ko terrain dafa am yoon. terrain day am këyit ak te mën na nekk acte coutumier acte këyit la parce que Abdoulaye Wade reconnaître na ko fi donc mu jóge foofu ñëw ci délibération dem ci bàyyi tenue comme boo ñëwee des Parcelles Assainies ay tenue lañ yor parcelle donc ñuy jaaree euh, direction HLM lañ koy euh, finaliser haute donc terrain day am këyit. parce que nit ki tey bu fekkee ni que ñëw na mu ne la damay jaay parcelle nga laajte ko ban nature la am bu fekkee nee na la délibération la jëlal copie délibération bi nga dem au niveau ci localité boobu commune bi bi mu yellool nga dem vérifier délibération boobu noonu bu fekkee nee na la nag yor naa bàyyi war na yor naa teef bi na nga jël état de droit réel bi. Mhm. yow en personne nga dem au niveau des impôts et domaines. nga vérifier ko sa bopp nga def dépôt bi boo xasee ba def dépôt bi. di nga am historique lépp li nga xamante ne parce que état de droit leen mooy carte bi léegi nag boo paree mën nga dem ci notaire bi parce que euh, vente rek nekkul rek notaire moo ko war a mun def quand même. Mhm. mais mën nga dem ci notaire parce que vente. kon acte bu njëkk papier bi nga jël nga dem vérifier dem vérifier ça bi mu yor. parce bu fekkee ni que délibération la la wax demal ci mairie bi mais bu weesoo délibération rek lu gën a suut délibération bu la ko waxee rek demal au niveau des impôts di nga xam lépp li xamante ne moo nekk ci terrain bi bu fekkee ni que am na charge di nga ko xam léegi nag boo paree mën nga dem nga jëflanteeg moom soit ngeen dem ci notaire bi ngeen feyante parce que loolu mooy dal xelu nit ñi loolu mooy dal xelu nit ñi na bàyyi man ma dem ci notaire bi mais il n'est pas dit que rek ni terrain bi litigé wul wala non non non c'est pas ça aussi. Mm-hmm. mais mais jënd jënd terrain euh, délibération ak mm-hmm. jënd terrain ci yi nga xamante moom nga wax sànq. bàyyi wala yu mel ban moo gën a wóor parce que la plupart euh, délibération ñu andi andi problème ci biir dëkk bi. non euh, bàyyi yi nag les baux. Mm-hmm. ñoo gën. dem ci TF. Hmm. parce que loolu da ngay dem ci notaire. mais délibération du dem ci notaire. du dem ci notaire non. voilà donc ñoom duñu dem ci notaire délibération daal moom moo gën non délibération ci commune bi la parce que commune bee ko reconnaître mais nag léegi dafa am procédure. Hmm. procédure boobu noonu terrain bi yaa koy jëlee ci délibération. Hmm. def say démarche dem déposer ko pour yow tam nga mun am sa bail. bail bi état bi jox la ko pour quatre-vingt-dix-neuf ans ci biir bail boobu noonu. au cours de trois am na solo moo faal euh, trois minutes moo ci des. waaw voilà donc je pense que mbir mi leen man kay euh, problème bi nga xamante ne moom moom laa xaw a euh, kii parce que lu lu lu ñu mës a expliqué la muy ñi ne ñoom ñoo nekk Europe di jënd di jënd fii terrain je pense que ñun aussi yoon yi nga xamante ne wóor na que bëri na ñenn ñoo xamante ne yàgg nañoo seen xaalis leen à travers ay yoo xamante ne nekkoon nañu fi Sénégal ba sax déggatuñ leen léegi ñu ne ñoom seen xaalis naax na naax na saay parce que dugal nañ seen xaalis ba pare seen xaalis dugg na jotuñu seen terrain jotuñu seen kër donc ñi nga xamante ñoo nekk Europe aussi ñoom aussi bëgg di bëgg bëgg di am terrain yoon dëgg dëgg dëgg yi nan lañu nan la ñu war a mën a jàpp a ñëw directement ci a mën a ñëw bindu si ngir mën a am du leer parce que bëri na ñeen ñoo xamante ne dañuy am jafe-jafe yooyu noonu sama mbokk yooyu a wax rek mooy ne la ne ñoom ñoo la war a jaay ci lu légal hmm. parce que comme wax nga ko fii léegi ñaata notaire lañ fi tëj ñaata notaire lañ fi tëj te pourtant dañuy wax notaire moo gën a fiable non hmm. ñaata banque ñaata banques yi lañ fi tëj et pourtant dañu ne banques yi ñoo fiable noonu mm-hmm. kon donc man li may njëkk wax foofu noonu rek mooy di di ñaan yàlla ak coono gi ñuy daj ñoom ci loolu fépp fu ñuy jublu rek mu nekk fi nga xamante ne foofu la ñu war a dem jënd jee mm-hmm. loolu moo ci ëpp solo mm-hmm. li ngay wax nag c'est vrai victimes yooyu noonu gis nañ leen des milliers des milliers des milliers ñenn ñi seen nijaay seen sœur seen papa seen yaay et tout ñenn ñi sax envoyé mais encore une fois bu ñu demee ba nga xamante ne fas yéene li ma leen wax nii ñoom nañ demander nature juridique terrain bi d' abord. Mhm. buñ ko xamee ñu ko xamee parce bu fekkee ne que acte la day jàll parce que bu fekkee ne que tey acte coutumier. Mhm. da koy jël def ko délibération. Mhm. ça passe. mais dangay jëflante ak ñoom. si si si si am na yu bëri yoo xam ne damay jëflante ak ñoom mais maanaam boo ñu laajtee rek. ñun mun nañ la wax bu fekkee acte boo munti yor rek. Mm-hmm. acte bi mun na jóge fii ba yegg nga xamante ne moo gën ci acte yi. Mm. donc yoon rek la. Mm. merci Boubacar. ñu waaw maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax que ni bon voilà bëggoon nañ gënoon xuus euh, mais comme euh, temps la. Mm-hmm. comme temps bi jeex na xam naa dañ koy dañ koy euh, bàyyi ba beneen yoon rek di nuyu seen. merci seen auditeurs yëpp. Mm. voilà donc di ko jaajëfal je pense que leer na tey ci bopp sénégalais yu bëree bëri bëri mhm. donc di ñaan état bi rek mu gën a mën a jàppale euh, euh, entreprise yu mel nii parce que je pense que euh, si ñoom la mën a mën a jaar ngir mën a régler wàllu li nga xamante moom mooy wàllu location bañu aussi di may nopp ñi nga xamante ñoo ko jege parce que ñi ko jege à chaque fois li ko ni ko neex la ñuy wax donc nañ ñëw si ñi ñoom ñoo nekk en direct ak ak nga xamante ñooy population yi ñu mun am trouver une solution ci wàllu location Sénégal mën a avancer waay merci merci ci li ñuy partage émission bi di gërëm suñu invité Boubacar Dembo Sagna PDG BDS Group di ko gërëm bu baax ci teewaay di gërëmam Adama mi fette woon na ci euh, cabine technique bi ak suñu auditeur rawatina Mamadou Lamine Silla euh, suñu fidèle auditeur la euh, di ko jaajëfal bu baax di gërëm itam mbooleem mbokku déglukat yi les auditeurs de l'ombre fàttewu ma leen mhm. maa ngi ma leen di dig dajee mercredi bi di ñëw même même fréquence beneen thème ak yeneen invité